kii di Ousmane Sonko bind ngir tontu député bi di Guy Marius Sagna jëm ci wàllug déclaration politique générale am moo tax ñu annuler débat d'orientation budgétaire mi nga xam ne waroon nañu ko amal ci samedi bile. li nga xamante ne nii moo waral suspension bi mooy moom ci boppam démb gis nga mu def déclaration boo xam ne amul benn worma bu mu jox assemblée nationale. ci biir lettre ba Ousmane Sonko dafa xamle ne fii lekk fukki fan ak juróom ci weer juillet gi ñuy waaj dugg bu fekkee ne soppiwuñu règlement intérieur bu assemblée nationale dina def déclaration politique générale am feneen fu dul assemblée nationale mu doon naka loo xam ne opposition ba daal na koy ñaawlu. maanaam day dem daal foo xam ne day woo sénégalais yi woo ay ñeneen ak ñeneen pour def déclaration politique générale ñun ku ñu yàpp ñii ku ñu yàpp Sénégal république Sénégal réew la boo xam ne dafa am ay droit ak règlement dafa am constitution. député Yewwi Askan Wi ñoom ñu jàpp ne li yëpp aljuma gii ci ngoon lañ ko orchestré gannaaw conférence de presse bu groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar doon amal ayib dafee ak ñoñam di joxoñ baaram tuuma njiitu ko assemblée nationale. ko convoqué sous la pression mais du yëfu loo xam ne moom moo ko def du sañ-sañu boppam si ay caaxaan nañuy doxee. si maatay nañuy doxee ci tappale nañuy doxee. buñ sukkandikoo nag ci ay dafee débat d'orientation budgétaire mi nga xam ne dañ ko annulé du gàllankoor dara liggéeyu gouvernement bi. liggéeyu gouvernement bi day continuer du am dara lu muy lu am dara lu ñuy tere gouvernement bi daf député yi kay nañu tere wax. député yi nañu tere daf seen liggéey. xëccoo mi nga xam ne nag am na diggante pouvoir exécutif ba ak pouvoir législatif bi ku moywul crise dina am diggante ñaari institution de la république yi